journée sans presse mu nekk loo xamante ne ci les une les cinquante six yaakaar naa cinq rek ñoo ci respecté wul yaakaar naa les quarante neuf je sais pas quarante neuf ñoo respecté li nga xam ne moom mooy journée sans presse bi cinq yoo xamante ne. daal respecté wuñu ko respecté wuñu ko et ñu gis aussi des organes yoo xamante ne avant sax mbir yi di am ñoom wane nañ seen bopp chose que j'ai apprécié wane nañ toog nañ ci ay plateau ne carrément participer wuñu tey participer wuñu suba te bu yàggoon une semaine aussi moo leen di gënal sax comme ñu continuer liggéey bi donc noo jàngatee loolu Bougane ci benn mbir boo xamante ne secteur boo xamante ne yaakaar naa ñun ñëpp ñoo war a bokk ndey ak baay. jërëjëf loolu loolu am na solo loolu loolu moo tax waa presse bi dañoo war a kontaan. Moustapha Diop nag wax wax wax patron de presse dinaa ñëw foofu dinaa ñëw foofu ma euh, loolu Moustapha Diop moom dawul coow ñëw foofu loolu moom vraiment ñi xam ne ñooy euh, journalistes yi ak ñi doon def journée sans presse bi dañu cee war a bég ndax réussir nañu à quatre vingt dix neuf pour cent quatre vingt dix neuf pour cent dañ ko réussir parce nag gis nga. Sénégal Zeyna dafa pëccoxoo woon pëccoxoo ci wàllum journalisme ba kenn xàmmeetul ki nekk pouvoir ak ki nekk opposant kenn xàmmeewu ki fi nekkal askan wi ak ki fi nekkal euh, boppam léegi nag journée sans presse bi euh, génnewaat na beneen euh, ticket boo xam ni tafal nañ ko ñëpp ñoo xamante ni presse bi kii nu mu tudd état bi moo leen di jox xaalis pour ñuy wax wala ñoom lañuy ñuy jàppal tànk ngir bëgg poste loolu leer na parce que nag loolu bëggaan ngay wax ci Walfadjri dëgg la Euh, ma dikk ci journée sans presse bi. réussir na baax na ndax bi biñ ko defee rek Bassirou Diomaye Faye euh, def na réaction te loolu na kontaan naa ci parce que njiit ma yaakaar naa ne loolu la njiit su dara xewee takk ne da ngay woote waxtaan ak ñoom dialogue ak ñoom ñu leen nangam ak nangam ngeen leen ñun la nangam ngeen leen nangam ba ngeen trouver terrain d'attente gars yi ko ne liggéey mais ñii bi ñu fi ñëwee ba léegi nii waxuma la journée sans presse bi plus de milliers de personnes la ñu yóbbu arrêté nañ fay liggéey yu bari yàqal nañu ñu bari dàq nañ ñu bari mm-hmm. te ñun ñëpp ñoo bokkul Sénégal te loolu warul warul warul presse bi bari na ci ñu bari ñu amoon ay convention yoo xam ni eh, état bi lañ ko daan def ay entreprise yoo xam ne dañu amoon seen convention dañ koo dagg pour lan mm-hmm. xanaa kooku du sénégalais xanaa kooku nekkul ci Sénégal di def contribuation di def euh, contribution euh, ci réew mi xanaa waxuñu jub jubal jubbanti mm-hmm. xanaa waxuñu xanaa wala wala wala wala bari na léegi nag ñooñee nga xam ni dañu toog di liggéey ci seen réew tey ma jox la benn exemple rek xam naa ni dinañ ne gars yi dinañ ma saa yow faa nga Tange de Tange bu ko neexoon dem États-Unis toog fa ñaataat mi ngi États-Unis di di voyage di wër na ci ànd bi yëpp. Mhm. lii mu investir fii lii day pour moom lii pour pour pour ñi ñi nekk ci ci réseau bi la. ñi nekk ci journaliste yi la. ñi nekk ci bunt bi ñiy dem seen livre yi ak seen bagage yi yenn saa yi du am revenu mooy jël poosam fay. Mhm. waa kooku état waru koo jàppale. koku waruñu ko def ay convention donte àndul ak ñoom donte ñoom la àndal te temps boko boko boo ko bu baax a baax nga déglu mais sa ki kii nguur gi la àndal day tek kat sur la table day isbama wu expliquer li nga xam ne réalité bi dëgg nag neexul gis nga tay jii nit boko de wah wax dëgg day jàpp ne sa noon nga day jàpp noonam nga. day am te état dafa set ni ñi àndut ak mu di jàppale ndax lan dëgg yi ñuy wax mën na cee retapé wu ngir jubbanti kon yaakaar naa ni xeex beeg toroxal nit nit ku yàlla toroxalu kenn mënu ko toroxal kon nañu jéem a sant yàlla bu baax a baax a baax xam ni journée sans presse bi jàll na président dégg na leen def na réaction te loolu lañ doon wut muy journée sans presse président xam ni kat lii am na njariñ ci réew mi waaye nag reculé na démocratie Sénégal ndax journée sans bi ma seetaanee France 24 ñu relier. message bi foofu daf ciy débat di ci wax mu daw BBC te BBC lu fay daw di caaxaan. Mm-hmm. non ça maanaam. partagé nañ ko jàpp nañ ni amul impact ci réew mi. mais ak am impact tey ma wax la benn affaire. Mm-hmm. benn invest euh, investisseur buy investir xaalisam. Mm-hmm. ci am réew presse ba deltu ginnaaw du ko def képp ku dikk pour investir fii. gis presse bi mer. wallahi légim day yóbbaat ay milliards yow mi nekk ci état sax soo demee di lebi xaalis wala ngay jëflanteeg benn bailleur li muy ñi ko xool ci seen réew ndax presse ba indépendant nañu. donc ñoom am na ci luñ ci luñ ciy perte. bu baax. fam lu ñuy perte état bi day journée sans presse bi mën na cee perte ay. milliards mais président da leen dànkaaf président nee na les na ne passent pas. bon yow loolu gars yi wax la rek. wax la rek presse presse kenn ñemewu ci réew. presse moy doxal rew mais quand même ñi nga xamné aussi jël nañ euh, initiative euh, liggéey ci journée bobu am nañ ci droit démocratie la wax bu len nexé ñu né andu ñu ci non ñom bu len nexé ñu ñu ñu andu ci waye nak waye nak presse bi nañu am fulak fayda rek gis nga and ak pouvoir tay suba man nga baña and ak mom dé tay mëna ñoo xey tegal lo nakar tay mën nga xey am tay xol ma jox la ben exemple wal fajari fi bi nga bi nga xamé ne sen ben euh, fauteuil tak na fa rek mhm. di nu kurru mais euh, presse bi ñëpp ko relier té pourtant bokkuñu. mais ñom Walf né nañ dégg na ci ñenn ci ñom ñu né retiré nañ fi sen licence té kenn deful journée sans presse. mais defu defuñu journée sans presse. mais quand même on a on en a parlé masawu nañ leen très bien ñëpp wax nañ ci ñëpp masawuñ leen. way dama la lan ma euh, Walf def ba ñu retiré licence am. c'est la question qu'on doit se poser. est-ce que bokk na ak li ñuy presse bi est-ce que Walf mas nañ ko tecc ci walu problème fiscal. te pourtant da ko amee des manifestations yi ñu daan da koy amee musul ñu ko tëj ci problème fiscal lii ñu teg presse bi muy injustice walfu moo daan def ay butisam ndax mooy dem ci manifestation di wane ay takk tàkk di wan gars ay journaliste am naan leen te et xam nga li gën a ñaaw. mooy la ñuy taal fii ci VDN bi. Hmm. nga dew def ko direct. daan ne voilà VDN bi fii VDN 3 bi VDN 4 bi ñu ngi taal fii xale yi dangam ñu ngi jaar fii policiers yi ñu ngi position sàngam. mais télé boobu war nañ koo bàyyi muy dox. non ci réew mu normal. ak caméra waruñu ko bàyyi muy dox. Walf problème yi la daan def te mais téewul presque dañu naan xeexal toog ci seen i micro di ko dénoncé nañu bàyyi fu nangam nangam ba ñu dollal seen licence lan moo tax Cheikh bi biñ ko fi licence bi fii nii. mu daal di jubal dem ci ci ci ci Macky Sall. wutali pare de moom moo moom dafa. menacé je vais déloger président Macky Sall moom dafa menacé Macky Macky ragal Macky wook. non du ragal Macky yëgul sax lu xew. gis nga gis nga yu bari xol même li nek di xew ci rew mi ci bari renseignement généraux yi bu ko joxul président Bassir Diomaye Faye du ko yëg. non mais Cheikh Niass boobu ñëpp ko yëg. Cheikh Niass ça fait la une des journaux. amul day déloger Macky xam nga ni ku fi tok ne day déloger président man. su togon ne damay déloger Diomaye moom ñu bari dañ may dégg. Cheikh Niass man na taxaw tay wax Macky Sall wax ju ñaaw. ci ngoon si mu gon ne si waaw vrai Macky baax la sax euh, waxtaan nañu. déggoo nañu non Cheikh Niass moom borom baax la Cheikh Niass moom euh, rusee ma. tur ci sant bi rek sa télé bii. moo nekkoon wal fajiri bi nga xam ni mooy voix des sans voix mais actuellement nga leen tuddee le voix des Pastef. ngeen ay kàddu Pastef ngeen yor ndax seen émission boobu ngeen di def wal fajiri saa joogu dafa nekk ak euh, waa jooju nga xam ni fen rek la man muy garabu garabu moomu. daa fena fena fena ba mel ni pig ni yooyu mu nekkee ci ci ci ci ci télé day gën a yàq seen der billaay wallaay ndax réew mi àdduna bépp xam nañu ab ab fenkat la kooku xam ni man maa ngi laa sa appel daal ni képp kuy naan ay garabam jàppale ne ay garabu fenkat rek ngay naan yàlla baax na